asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97 point 5 rawatina seen 97 euh, point 5 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar rawatina ñi ànd ak ñun chaque samedi de heures à 11 heures ci seen émission sociale toute la ville en parle tey ji seen émission euh, sociale toute la ville en parle dalal euh, ki lee di Abdoulaye Jean Wane nekk délégué ca Laborex du Sénégal li tax nag ñu dalal ko moom mooy gis ngeen semaine il y a wala trois jours defoon nañu ab euh, conférence de presse di dénoncer app licenciement abusif boo xamante ne am na euh, foofule ca Laborex du Sénégal ñu fas yéene waxtaanee euh, ci boobu boobule ak tamit fan la ñu toll ci xeex bi ngir rek ñu daal di leen rétablir ci seeni droit daañu waxtaanee tamit lépp lu soxal actualité bi di lile di coronavirus kon Jean Abdoulaye Jean Van ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. Euh, ci invitation euh, bi nga ma opportunité bi nga ma jox ci invitation pour ñu mën a exprimer wu. Mhm. exprimer wu largement. Mhm. à travers euh, la population. voilà et bon balaa may commencer maa ngi bon sant yàlla. Mhm. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant samay waajur. et surtout bon di ñaanal tamit suñu. collègue délégué bi nga xamante mi woon ci ñun. nekkoon ci xeex bi te vraiment après daal. vraiment yàlla def li gën ci moom. Mm. ñu ngi koy ñaanal et que bon déglu tamit doo kii ko daal euh, dolli ko ñaan tamit suuf yooyu woyofal ci ko am te yàlla jégal ko ay bàkkaaram kon na ci ci xeex bi mi ngi tudd waaw mi ngi tuddoon Charles Alfred Nunez waaw bokkoon na ci te sori woon na ci loolu kon mi ngi noonu ñu koy remercier ci disponibilité am di leen massawu tamit ci seen collègue boobu lay nga xamante ni euh, génn na àdduna bala ñuy ñëw ci euh, fond problème bi déjà dinañ laajte ci liggéeyu Laborex ci lan la yëngatu ainsi de suite comme ça auditeurs yi xam exactement lan mooy Laborex tey jii dinañ la laaj euh, Laborex ci lan la yëngatu exactement entreprise boobu. waaw Laborex euh, benn filiale la boo xamante dafa nekk ci benn groupe groupe boo xam mooy groupe CFAO. je crois mhm. que groupe CFAO ñëpp xam nañ ko Sénégal. Mhm, mhm. CFAO ni ko ni li ko nit ñi xamal sax mooy affaire de oto. jënd ak jaay ak lu jëm ci technologie gi mel noonu. mais dañu bëri ay filiale Euh, dañuy euh, euh, dañuy def tamit kii yu médicament hmm. donc mooy mooy waa Laborex groupe hmm. de pharma hmm. donc ñoom dañuy def répartition ay produits garab donc voilà à travers donc ñoom ñooy jox pharmacie en général Euh, euh, euh, garab yi nga xamante ne moom la population bi di di di di di jëfandikoo bu ñu feebaree ak yu mel mm. noonu. ak mm. hôpitaux yeeg yu mel noonu ak yooyu daal. Mm. naka lay demee affaire bi garab yi fan ngeen koy jëlee naka ngeen ko yóbbee si pharmacie yi comment ça se passe. bon c'est simple ah. Mm-hmm. Labrex. Mm-hmm. bu pour pour pour pour mu pour mu pour mu mu yomb ci ci ci ci ñi ñuy déglu. Mm-hmm. c'est comme un commerçant. ñoom dañ fi nekk comme ce sont des commerçants mu ne dañuy dem jëli garab yi bitim réew. Mm-hmm. dañ koy commandé ci laboratoire yi. Mm-hmm. bu ñu ko commandé ci laborex ñoo koy commandé. ci laboratoire yi. bu ñu ko commandé ci laboratoire yi ñu indi ko bu ñu ko indee après ñoom ñu def dispatching bi donc pharmacie yi di ñoom comme genre grossiste. grossiste la ñu voilà ñoom ñooy jël médicament yi. andi ko au Sénégal donc, distribuer ko les pharmacies waaw def répartition waaw donc loolu mooy seen. mooy liggéeyu euh, Laborex mais mais naka lay demee exactement euh, commande bi sa sa prend du temps euh, su ngeen àndee comment ça se passe avec les pharmaciens pharmaciens yi ñooy ñëw jënd wala yéenay dem proposer médicament yi comment ça se passe. non non bon xam nga bon comme que Laborex daf fi yàgg. Mhm. Euh, euh, installé wu ci comme grossiste yi nga xamante ne ñoo fiy jaay jaay ay garab. Mhm. donc euh, ñoom bu ñu commandé garab yi. Mhm. donc c' est c' est c' est structuré. Mhm. donc dañuy dugal produit bu ñu ko dugalee ci seen base de données yi donc à travers comme léegi kii internet beeg affaire yu mel noonu. donc dañuy lancer affaire bi bu ñu ko lancer pharmacie bu ci nekk di nga xam ne jot nga jot jot kii am na rentrée garab bu am. wala ñu envoyé leen comme ay. document yoo xamante ne dañ koy tirer bu ñu ko tirer. Mm-hmm. donc euh, bu fekkente ne oto yi dañuy dem tourner. Mm-hmm. parce que tourner yi euh, par zone la. Mm-hmm. par exemple dañ naan zone zone de parcelle zone Grand Dakar zone zone zone zone euh, Kër Massar. Rufisque bu nekk oto bu nekk am na. foo foo fooy jublu donc mooy mooy tournée yi léegi bu ñuy dem ci biir bac yi nga xamante ne dañuy def médicament yi nga xamante génn na pharmacie commandé nañ ko dañ ciy def ay information mm. donc ay document soit mu nekk document am na ñoo xam ne dañ ko jot par par par par seen kii quoi euh, voie électronique quoi donc noonu la ñuy def mm-hmm. wax leen ne am na ay rentrée médicament yu mel noonu wala à travers nos nos opérateurs mm-hmm. opérateurs yi mooy ñi nga xamante ne mm-hmm. ñooy wootee dans les pharmacies pour pharmacie yi commande par exemple da ngay tool nekk sa ordinateur donc lépp produit yëpp stock bi yëpp di ko xam donc yow da ngay toog woo ko nekk pharmacie diw dama lay woo pour commander bi. Mhm. bu fekk ne am na commande mu ne ok on y va. Mhm. mu naan la par exemple aspirine nga tapé euh, euh, euh, c'est à 5000 nga tapé ainsi de suite ainsi de mhm. ba mu ne la baax na nga validé boo ko validé day dem directement ci biir magasin bi. bu demee ci magasin bi am na agent yi fa nekk yoo xamante ne dafay génn foofu ci benn machine. bu génnee ñoom dañu gis. kii bi bordereau bordereau bi. Mm. bordereau bi à travers ñu jël ko. Mm. ñu ñu dawal affaire bi dugg ci biir rayon yi génne produit def ko ci ay bac gars yi contrôlé xool ndax normal na wala normalul ñu tëj ko bu ñu ko tëjee mu génn ci beneen zone bi mooy zone bi nga xamante ne foofu la livreur yi nekk donc bu ñëwee ba foofu. am na ku fa nekk koo xamante ne mooy réceptionné commande yi bu ko réceptionné léegi da koy teg par par par par zone. Mm. par zone de euh, tournée quoi. Mhm. donc bi jëm Grand Dakar bu xoolee ne pharmacie Grand Dakar la nekk. mu tekk zone Grand Dakar. Mhm. bu xoolee ne gisee ni pharmacie bi tëngéej la nekk mu tekk tëngéej ba mu mat dafay am benn per benn temps bu demee ba benn temps par exemple matin bi nii bu ñu xëyee. ñoom dañuy xëy 8 heures bu ñu xëyee 8 heures ñëw bu ñu ñëwee ba na entre 10 heures jëm 10 heures jëm 11 heures yooyu yu njëkk yi génn na donc à partir de 11 heures nga gis livreurs yi ñëw ku ci nekk taxaw fi nga war a taxaw ñu chargé commande yi ku ci nekk jaar zone bu nekk nga dem ñu livrer commande yëpp donc en grosso modo. loolu mooy liggéeyu Laborex léegi Laborex ak euh, ak ak ak pharmacie nationale d'approvisionnement luy différence bi. bon ñi sont des privés. te hmm. ñële ñële ñële état bi la. pharmacie nationale d'approvisionnement. c'est l'état c'est l'état ñii. seen côté c'est privé. Hmm. donc c' est ça la différence. loolooy différence bi mais est ce que si jamonoy Covid 19 bi nga hmm. xamante ni affaire euh, frontières yu fermé yi ainsi de suite gis nañ ni dem beeg dikk bi ni mu demee woon demeetu ko. Hmm. est ce que loolu du indi euh, problème de rupture maanaam médicaments yu bëri maa ngi. côté boobu mais si dina am. Hmm. parce que man a a a a des ruptures tamit damay jëfandikoo ci population bi laa bokk. te dama yor ay doom yor ay ay ay yu mel noonu mais comme que xam naa nit ñi tamit ñi liggéey ci dans dans le kii pas mm. rek mm. bu garab manqué bu ma nee pharmacie bu j'appelle samay connaissance nee ah garab bi de gistuma ko ñu ne dafa nekk rupture dafa gëj ñëw affaire genre mel noonu mm. effectivement ça crée de problèmes actuellement maanaam covid 19 andi na problème ah maanaam rupture ah, garab yu bari si la bokk mais mais en dehors ci covid bi lan mooy indi souvent Euh, garab yu bëri di manqué rupture yi di am euh, parfois nga war a jël ñu ne la garab bi dafa am rupture souvent loolu lan moo koy andi en si période Covid bi ñu nekk parce que loolu ça arrive souvent. loolu man maîtriser ma ko mais. Mhm. bi ma fa daan nekk. bu mhm. problème yoo daan am dañ daan ne ci labo bi la. Mhm. ci labo bi la donc laboratoire bi nga xamante ne ci boppam mooy defar garab bi donc problème bi foofu la nekk donc en général rupture bu daan am ci laboratoire bi lay yenn saa yi ñu ne la affaire bi dafa jeng li ñuy defar bëriwul. Mhm. ñu ji yóbbu ko yeneen zone bu dul zone Afrique par exemple genre yu mel noonu bon yenn saa détails yi koy dégg ak yu mel noonu quoi mais foofu bon maîtriser ma ko bu baax. mais mais dañu naan souvent ci labo bi la donc ñu defar moo doyul. waaw moo tax bi daal di am euh, léegi ñi liggéey Laborex ay pharmaciens lañ wala ay lan lañ comment ça se passe le recrutement. waaw am na waaw ay mhm. pharmaciens lañu. Mhm. pharmaciens yi des cadres pratiquement. donc euh, en général directeur bi ak ñi koy topp pharmacien assistant yi. Mm. ak yenn responsable yi nga xamante ne. Mm. ñoo ñu yenn cadre yi ay kii la mais am na yeneen ci admi ci administration bi ñoo xamante ne du ñu ay pharmacien ay pharmacien par exemple administration bi y a des comptables y a des commerciaux y ñeneen ak ñeneen ak yu mel noonu ko mm-hmm. donc am na comme ni ni ni ni ni administration di demee rek. Mm-hmm. donc ñoom ñoo koy kii mais comme que affaire garab la li nga xam ne dafa jëm ci domaine garab yëpp. Mm-hmm. xam ne ñooy commandé garab yi. ak di xool saytu affaire yi. ñooñu ay pharmaciens ñooñu ay pharmacien lañu. Mhm. ñooñu loolu liggéey pharmacien la directeur bi en général pharmacien lay doon moom tamit. Mhm. parce que il faut que mu nekk koo xamante ne. xam euh, affaire domaine beeg yu mhm. euh, noonu lay. noonu lay demee léegi ñu laaj la tuuti bala ñuy ñëw ci seen euh, problème bi mhm. ci wàllum trafic illicite de de médicaments. gis nañ ni xeex trafic illicite de médicaments yombul yow ban jàng nga ci am exactement ak ni ñuy jaaye médicaments yi ci mbedd mi ainsi de suite ba léegi. waaw ni ñuy jaayee effectivement xeex bi. man dina am loo xamante ne duma ci sori. Mm-hmm. lu waaw du ci sori mais kooku xam naa peut-être nañ amaat benn opportunité. wax si pour wax ci. Mm-hmm. waaw ñoom ñu ngi may dégg. Mm-hmm. parce que tey dama lay wax benn affaire garab yi fii garab dafa nekk affaire bu doy waar garab. man mën naa ne instant bi nii booy dégg sax booy dégg booy kii sax ñiy def trafic garab. ñu ëpp xaalis foofu ñuy def trafic drogue. garab dafa doy waar parce ay composants am yëpp ay produits chimiques la. Mhm. boo gisee tout le temps ñu ñu ñu ñu boo demee ñu prescrire la. Mhm. ne la jëlal benn wala jëlal genn wàll. Mhm. boo ko deful da gis mu lor la. sa santé wala boo ko jëlee temps de jours arrêté arrêté la affaire yu mel noonu. c'est parce que li ko composé la te li ko composé tamit boo ko jàngul tamit doo ko maîtriser moo tax c'est très important nit ñi di déglu docteurs yi ak pharmaciens yi bu ñu leen nee def leen ñu def leen te ñun sénégalais tàmm nañ di def automédication. yow lii la jig man jiguma hmm. man sama bopp bi muy métti wala biir bi lii laa jël ko yow nga dem ci mel noonu hmm. kooku je conseille à la population ñu si def très très très attention automédication nañ koy moytu bu la amee leen jot nañ dem seeti pharmacien bi wala docteur bi bu leen nee defal lii ñu def lii bu ñu leen nee bàyyi lii ñu bàyyi lii donc pour revenir ci affaire trafic bi trafic bi man c'est simple ñan ñoo ko fi indi ñan ñoo indi garab yi hmm. parce que Sénégal structuré na si benn am na am na am na am na c'est bien structuré. Mhm. aéroport frontières yi bien surveillé donc ñoom ñooy jaar légalement dugal fi garab yi. Mhm. léegi nag bu garab yi di génnee naka su dul noonu. Mhm. am na lu tax. am na lu tax et man j'en quelque chose. léegi nag foofu du fu mën a sori ñoom waa Labarex ñu may dégg ñu may dégg j'en quelque chose. mais foofu laa mën a yem. en attendant mais xam doo fi mu nekk nii. lu doo ko wax parce que. Mm-hmm. Mm-hmm. fi mu nekk nii amaguma loo xamante ni dafa am lu ma war a mottali. Mm-hmm. pour mën a ñëw toog carrément nekk à parce que actuellement je suis pas à pour wax ci carrément. parce que li ma ci am affaire trafic affaire lu ndaw la. lu ndaw la te bon balaa may dem ba di di dugg ci ci benn ci benn mbir. dafa damay damay damay ba lépp ba lépp leer ma ba pare. mais dafa nekk sujet bu sensible loolu nga bëgg a wax. waaw mais parce que gis nañ xeex bi boobu bale ñu ngi koy xeex mais. le problème est toujours parce que ñi nga xamante ñoo ko war a taxaw lijjanti ko. Mhm. mais non comme comme kii la rek dañuy dañuy ñëw bu ñu ñëwee yuuxu naan. Mhm. ñi nga xamante dañuy yuuxu naan way mhm. médicament yi nangam nangam nangam yi mais ñooñu di yuuxu noonu noonu noonu. seen biir ñoom bi ñiy yuuxu. ñiy yuuxu ñoom am nañu seen biir ñoom ñooy def trafic bi. mais loolu ban sens la am. Ah. pharmaciens yi di yuuxu tourné waat ah. defaat trafic ah, bi. mais mais yow ka yow yow Sénégal noonu lay doxe mhm. ku ci nekk yow man dañuy wax léegi nga romb mu nga nga won ma ginnaaw ma ma ma jam la paaka ci ginnaaw. gars seen intérêt rek la ñuy dawee gars yi kenn faalewul kenn kenn faalewul. léegi ñiy jaay garab yi ci mbedd mi kan moo leen di jox garab yi. mais fa lañ koy jëlee ñu fiy dugal garab ñoo leen koy jox. ñi fi dugal garab yi ñoo koy jox waa Kër Sëriñ Ba duñu ay pharmacien duñu importer garab mënuñu ko importer donc ñi fi dugal garab ñoo leen jox garab yi ñi fi dugal garab ñoom ci xam man li may wax ñoom ñoo xam nañ ko et que loolu dafa kii parce que le problème tey qui se pose mooy que. Mm-hmm. mooy ci corps yëpp. Mm-hmm. boo demee justice nga dem police nga dem euh, ci yenn institution yi ni mu amee ñu ñi nga xamante ne ils sont droit debout. Mm-hmm. di def carrément seen liggéey normalement. noonu la amee ñoo xamante ne ci biir yëfi tappale rek la ñuy def c'est ce qui se passe aussi dans ce dans ci ci biir hmm. milieu boobu. te yow nga ne trafic illicite de drogue moo euh, de médicament moo ëpp xaalis. Euh, trafic de drogue mais mais kooku c'est contrôle c'est c'est c'est vérifié. mais si c'est vérifié bis yaa sa gars yi def ci ay publication ki mel noonu di jox ay estimation ñi trafic fraude garab li muy li muy rapporté par rapport ak euh, fraude kii bi nu mu tuddati. drogue bi loolu loolu loolu c'est vérifié. pour yow léegi lan moo ciy solution. non solution bi ñoom mi ngi. par rapport ak euh, trafic illicite des médicaments. solution bi peut-être xëy na comme comme ni ko douane di defee ñu ngi seet ak yu mel noonu mais nañu redoubler d'effort nañu redoubler d'effort nañu redoubler defoor bu ñu redoubler d'effort rek dinañ gis li li li nga li euh, bon new ma dina dina dañ carrément peut-être ce sera un peu difficile. mais dina mun a wàññeeku. mais ñi ñiy jaay garab te waruñ jaay garab nag. mais loolu liggéey liggéey liggéey liggéey nguur bi la. nguur gi liggéey nguur bi la parce que ñëpp xam nañ ne garab dafa ay normes yu ñu koy dencee. dafa am température yoo xamante ne ci ci ci ci ñu ko war a conserver yu mel noonu tey da ngay gis tout temps dañ koy exposé ci naaj beeg yu mel noonu te waruñu ko ci exposé ak yu mel noonu dafa am endroit yoo xam ne dañ ko tey boo demee par exemple ci ci livraison yi par exemple tey laboratoire yi par exemple. Hmm. ñoom seen bopp ils sont tellement exigeants dañuy demander ay euh, normes yu sévères yoo xamante ne ba man avant ñu fay jugee ñu ngi doon transformé waat. Hmm. magasin bu Laborex pour mu ñëw aux normes ñi nga xamante ñoo moom garab yi dañuy ñëw. Mm-hmm. di def ay inspection ci kër yi pour xool ñan ñoo nekk ci ay normes. Mm-hmm. pour ñoom ñu jox leen seen i garab. Mm-hmm. parce que tamit c'est très important parce que ñu tamit ñoom mën na lay jox garab bu baax yow conservé wuloo conservation bu baax. ñu jox ko nit mu am ci problème mu am ci problème après dañu naan laboratoire après dañu naan laboratoire nu mu defaree affaire bi baaxul. donc c'est très normal conservation bi baaxul moo tax Laborex ñoom côté boobu ñu ngi ci doon quoi quoi quoi quoi que l'on dise defoon nañ investissement bu bare pour ñu mettre euh, euh, kër gi euh, ci norme yi nga xam moom la laboratoire di di kii mm-hmm. waaw bëgg. waaw bëgg dans les normes. waaw ayca léegi ñu euh, ñëw laaj la euh, ci licenciement abusif bi nga xamante ni moom mm-hmm. ngeen di yuuxu. Mm-hmm. Euh, ay agent wu Laborex ñoo xamante ni dañ doon liggéey foofu ca Laborex. Mm-hmm. ñu xëy xëy dàq leen. exactement qu'est-ce qui s'est ba ñu licencier leen. waaw li lii kii li li li li li li am ci affaire licenciement bi. lu yomb la avant ma fay jugee def naa fekk na ma def fa 16 ans. 16 mhm. ans nga def Laborex 2002 mhm. juillet juillet 2002 ba mhm. août 2018. Euh, il s'est trouvé que kër gi ñun bi ñuy ñëw foofu ñun sax bi ñu fay ñëw dañu fekk ay avantages. ay avantages yoo xamante ne ay suñu ay papp ñoo xamante ñoo ubbi woon kër ga depuis 1949 yu mel noonu ñoo ko fa amoon bàyyi ko fa bàyyi ko fa seen doom ba seen ay sët ñëw di ko di ci jot. ah ñun nag bi ñëwee te ñu fekk ko fa directeur bu bees bi bon avant moom sax directeur yi fi jaar yëpp man mën naa ne lu mat ñett wala ñeent directeur jàll jàll nañ avant moom muy ñëw mais tout le temps dañuy jéem a laal ci affaire bi. Mm-hmm. parce que éco yi ñu ci daan am dañ daan ne ñun Laborex Sénégal parce que comme que multinationale la. Mm-hmm. parce que c'est un peu partout en Afrique ah. boo nee Côte d'Ivoire Guinée Mali euh, euh, euh o euh, Maghreb mm. Algérie ainsi de suite ñoom ñëpp mm. euh, euh, ñi ngi foofu firme yi ñi foofu ci ci groupe bi donc dañu naan employé Laborex yi ils sont trop choyés quoi parce que dañ fi amoon avantage yoo xam ne dañ ko mm. téye ba pare quoi peut-être fële ñoom suñu ginnaaw lañ ubbi wala ñu am nañu ay affaire yoo xamante ne amoon nañ ko ñu dindi ko ku mel noonu quoi bon avantage yooyu mën naa ci wax mooy benn sur les sur les mooy li njëkk li indi problème mooy affaire les les les parce que euh, euh, véhicule amorti yi. Hmm. dañ ci dañ ci dañ ko négocier woon ak ñoom pour bu bu buñ ko amortiré au que ñu koy jël di ko jaay ñeneen si mbedd beeg affaire yu mel comme ñun ñoo ciy liggéey. Hmm. ñun nañu ko jox franc symbolique. Hmm. bu ñu ko joxee franc symbolique ñun après ñoo xam nu ñu koy jaayee. ñun mu defar suñu kii quoi donc loolu yëpp c'était pour kër gi di dimbali ñi nga xamante ne ci biir. kii maanaam suñ ñu jox leen oto bi. waaw jaay leen ko. jaay ñu koy jaay franc symbolique mayuñu ko nag. dañu koy jaay. léegi nag ça dépend ci état oto bi nu muy demee. Hmm. ñaata ngay joxe. waaw hmm. non non ça oto bi par exemple mën na ñëw am problème boo xamante ne ñu ne la bon léegi dañ la koy joxe trois cent mille. Hmm. supposons am na oto boo xamante ne mën na daw ba kii ñëw nekk ci état. dañ la koy joxe neuf cent mille wala un million. après yow yaay xool noo koy jaayee bu la neexee yaay xam ndax deux millions ngay jaay wala trois millions wala quatre loo ci am daal yaa loolu am fa plus de vingt ans. man bi ma ñëwee. Mhm. nee naa seize ans laa fekk man bi ma ñëwee foofu laa ko fekk. léegi moom mu ñëw mu ne non non boobu amul du accord binduñu ko ñu ne ko waaw d' accord binduñu ko mais usage la te loi Sénégal boo demee article quatre convention interprofessionnelle national mhm. collective bu Sénégal. article 4 dafa lay wax ci affaire avantage ak yi mhm. dafa la ne même bu fekkente ne bu dul lu ñu bind wala accord wala luy loo xamante dañ ko yàgg def ci biir kër gi mais loolu avantage acquis la. Mhm. mais da ko war a bàyyi waroo ko laal ah toog ñu foog ne ñu toog ba ci jamono ñaari oto yoo xamante ne ña nga fa oto yoo xamante ne euh, benn bi. DG moo wax loolu da koy dindi. directeur waaw da koy dindi bi mu nee nag da koy dindi ñu ne nag. Mhm. bu ko laal ah ñun ñu toog ba jëmi dama jamono daal gis daal ne euh, euh, DG bi. Euh, euh, ñaari ñaari oto disparaître na. Mhm. bon ñaari oto yi ñu dem laaj ko bon bi ñu ko bindee dem laaj ko mu jox ñu loo xamante ne moom moo moo moo lu ñu lu ñu lu mën a dégg. Mhm. donc euh, ñu toog comme que ñun ay kii lañu ay livreur lañu. Mhm. suñu oto yi dañu bëri dañuy dañu daw ci àll bi. di daw di daw di daw di daw. ah ñu daw ba ci ay pratique ñuy jaay oto gis fa oto yi. bon gars yi ne nag. lii nag gis ñu teg fa oto yi ñaari oto ñaari ñaari oto yi di jaay. Mhm. ah fekk oto yooyu lu fa nekkoon bañ bañ bañ génne ko. non oto yi dañu amortiroon. Mhm. donc dañ leen woon génn dañ jëndaatoon yeneen. yeneen mu war a donc jënd nañ beneen yeneen yeneen yeneen ñaari oto yoo xamante ne yu yem. pour euh, euh, benn oto bi nga xamante ne moom moo woon bu transport personnel bi beneen bu médicament bi appam dafa jotoon donc dafa waroon génn. Mhm. parc bi. en général bu ñu doon 4 5 ans dañu leen di génne quoi. donc ñu indi yeneen yu bees ak yu mel noonu quoi. donc boobu tey ñu génne ko dañ ko waroon génne changer ko yu mel noonu. bon mu jaay ko mu jaay ñu ñëw interpellé ko biñ ko interpellé amuñ ci amuñ dégg dégguñ ci dégguñ ci euh, lu lu lu mu wax mhm. donc euh, ah personnel bi ñu informe personnel bi personnel bi nee nañ dem assemblée générale parce que lii duñ ko bàyyi mu jàll du moment où bi muy ñëw avertiroon nañu comme quoi que ak ay intention pour dindi suñu yenn avantage donc lii benn boo xamante daf ci joggi te lii duñ ko bàyyi buñ ko bàyyi mu jàll ci leneen la jëmaat ñu woote assemblée général bu ñu wootee assemblée générale ñu dugal demande d' pour mu def suñu assemblée générale. Mm-hmm. bu ñu ko dugalee mu refuser ko. ok bu refuser ko ñun ñu génn dem ci biti ñu dem def suñu assemblée générale ñu dem def suñu assemblée générale ba pare bu ñu ko defee ba ñu ko defee ba pare parce que période boobu dafa fekkoon benn jeudi loon c' était le jeudi euh, vingt et un. Mm-hmm. vingt un juin euh, mille dix ñu def ko parce que samedi bi 23 juin bi dañu waroon def inventaire. Mm. inventaire mi euh, mi mi mi mi mi mi mi année bi quoi. Mm. parce que deux deux ñaari inventaire la ñu def ci année bi quoi donc bu ñu defee 6 mm. euh, mm-hmm. ñu ñëw bi ñu ñëwee. Mm-hmm. ñu demandé ko mu refusé ko ñun ñu ne ne kon nañu génn bi ñu génnee ñu def suñu assemblée générale bi ñu defee suñu assemblée générale ah personnel bi décidé ne du moment où noonu la demee. duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg léegi comme que dóorante la dóor nañu ñun tamit dañuy fayu fay mooy lan mooy inventaire bi nga xam ne dañ ko war a def samedi après midi. Mm-hmm. duñ ko def. Mm-hmm. et je précise samedi après midi boobu dafa fekk nit ñi liggéey ba pare. Mm-hmm. def nañ suñu horaire de travail normal. liggéey ngeen ba pare mais defoo leen inventaire bi. waaw mais defuñu inventaire bi. parce que inventaire bi du loo xamante obligation la. parce que ku ko def dañ lay fay dix bu fekkente ne woon loo xamante ne dañ ko négocier wala mu xam loo xamante dafa war a nekk ay heures supplémentaires yu mel noonu duñ la fay dix mille francs mhm. heures supplémentaires ñëpp xam nañ ñu muy demee. Mhm. dañ koy dugal sa biir bulletin de salaire. Mhm. mais musul am loolu. ah bi loolu amee ñu def ko dakaar dakaar ñoo def assemblée générale parce que dakaar mooy locomotive bi. donc bi ñu ko defee yeneen agence yi ñu joxe moo door bi agence Thiès Kaolack Saint-Louis donc quatre agences lañu ñu am à travers euh, le pays donc Thiès euh, euh, boycotté kii Saint-Louis ak mhm. Kaolack. Mhm. Ziguinchor rek agence mhm. moo defoon moo defoon kii am inventaire bi ñu ko defee ñu toog ba jëmi jamono mu envoyé ñu huissier. huissier ñu jox ñu. kii wu demande d'autorisation wu licenciement wu euh, inspection du travail. Mhm. bon ñu jël ko gars yi def ñu mise à conservatoire. Mhm. ñu toog di xaar bu ñu demee inspection li li ci gën doy waar mooy que bi ñu demee inspection parmi ñun huit euh, kii nu mu tudd ci euh, délégué yi nga xamante ne woon. Mhm. parce que Dakar ñun dix délégué lañu. parce que kër gu mag la. mais ñaar ñi dañu absenté woon ci kii bi kenn ki dafa nekkoon congé kenn ci bon. pour des raisons que nous ignorons. Mm, xamuñu woon lan mm. moo tax mu ñëwul woon donc nous étions huit. bon ci biir huit yooyu bi ñu demee inspection à notre grande surprise nous avons constaté comme quoi que deux yooyu nga xamante ni ñu ngi woon ci ñun. Mm-hmm. yeneen deux yi ak deux yi nga xam dañ absenté woon sont rangés du côté de la direction. Mm -hmm. comme par hasard. comme mm-hmm. ça on savait lu xew ñu ñëw. deux yu woon ak deux yu nekkoon si ci ñun ñoo hmm. xamante ne ci huit yi hmm. deux yooyu dañu dem rangé wu ci dañu ci côté direction bi hmm. ñëw di témoigner contre ñun lu direction bi wax à l' ñu ne dëgg la lu direction bi wax à l' ñu ne dëgg la waaw ah inspecteurs yi joxe décision décision bu xaw doy waar nag décision boo xamante ne dëgg-dëgg man yaakaaroon naa ku jàng ba. am bac plus cinq bac plus six ak yu mel noonu. Mhm. am na yoo xam ne yu terre yu élémentaire yoo xamante ne waruloo ko di def daal. Mhm. parce que bu fekkente ne ci biir décision bi ñaar laa ci laa laa laa ci kii parce que xam naa temps duñ ko permettre. Mhm. boo nee ñun autorisation la ñu demandé woon informé wuñu daf may xaaw a jaaxal parce que ku dëggal autorisation c'est informé. ku dugal autorisation c'est informé et ensuite ñun ay délégué lañu boo demee ci article 70 bi bu convention collective encore lim mu ci wax dafa leer dafa ne délégué heure de réunion mm-hmm. ak ay ak ay assemblée générale heure boobu dafa mooy ci biir heure liggéey bi mm-hmm. dañ koy imputer ci biir heure liggéey bi soit vingt heures par par par par par mois mm-hmm. léegi moom inspecteur ne ma man dama def dañu def euh, euh, euh, suñu suñu suñu suñu assemblée générale si suñu biir heure heure de travail. Mm. mais kooku loi moo ñu ko may. Mm. pour inspecteurs yi ñuy déglu ak ñi kii di droit. Mm. mais kooku loi moo ñu ko may. loi moo ne samay réunion ak samay mouvement syndical yëpp ci sama biir horaire de travail lañ koy imputé du ñu xaar bu doo du ma xaar boo wàcc pour def ko. donc loolu tamit xaw na ma jaaxal. trop trop trop trop gis naa ne ñaari côté yooyu dañ dañ dañ dañ ci ñëw. wax ci loo xamante ne loolu lañ décidé ba licencié ba ba licencié ñu. ñaata agent euh, huit lañu au total mais douze délégués ñoo ñoo nekk ñoo ñoo. impliqué maanaam délégués yi lañu lañu lañu jël licencié. délégués yi ce sont des délégués six délégués de Dakar ak benn bu Thiès ak benn bu Kaolack. Mhm. te délégués yëpp ñaata la woon. délégués yi nous sommes dix à Dakar et deux de de de chaque région. donc mhm. euh, day nekk euh, je crois dix huit la ñuy doon. Mhm. nous sommes dix huit. Ah, parce que boo jëlee Thiès Kaolack Saint-Louis Ziguinchor waa bu nekk 2 4 6 8 ak 10 mais les 12 ñi nga xamante noonu qui étaient impliqués yi mooy 8 yi nga xamante ñoo nekkoon à l'assemblée générale de Dakar donc ak 2 ñi nga xamante ne boycott bi nga xamante ne Thiès Saint-Louis Kaolack def nañ ko donc boo xoolee 12 euh, la woon. Mm-hmm. donc 12 yi. ñu ñu seppi ci waaw ñu seppi ci 8. 8 mm-hmm. yi mooy 6 à Dakar benn Thiès ak benn Kaolack. donc pour pour pour pour wax la par exemple. daal di licencier si huit huit huit agents. huit délégués bu Laborex. waaw huit huit à Laborex. donc ñaar ñooñu may wax. Mm-hmm. ñu ngi nii. Mm-hmm. ils étaient à l'Assemblée gis nga fa liste bi. Mm-hmm. liste de présence AG bi ñu ne. du 21. ñëpp MAG bi seen kii gis nga ñaar ñii. ñaar ñii. te ñu ngi fa woon ci assemblée ñu ngi fa woon ci assemblée parce que ñoom ils ils étaient derrière le le le le le. d' accord bi ñuy licencié ñaar ñi bokk. bokkuñ ci ñaar ñi waaw ñu di Dakar ñu di Dakar. mooy ñu témoin en faveur de la direction. voilà ñu doon témoin en faveur et aujourd'hui seen ca seen bamba tooy na ceeb na. ceebal nañ leen dégg naa ñu leen defaral promotion ci biir kër gi. ah bon ah oui il faut aller vérifier il faut aller vérifier. léegi bi licenciement bi amee. lan lañ teg ci ci table bi carrément pour wax ni lii moo tax ñu licencier leen. waaw ñëw nañ teen ci affaire inventaire bi. Mhm. te ci inventaire bi <laughs> li ci xaaw a li ma ci xaaw a jaaxal ñoom inspect inspecteurs yi ñoom nee nañ encore man waruma woon def inventaire par exemple le samedi. Mhm. parce que man ci livreur yi laa bokk. et waruma amoon accès waruma woon dugg parce que ñee parce que sama sama sama collègue délégué on témoigné comme quoi que ils m'ont vu dugg ma dugg ci biir euh, euh, euh, magasin bi di di di di wax ak di wax ak di wax ak gars yi pour ñu génn mais. man ma nekk sama biir heure de travail ma nekk sama biir lieu de travail magasin bi foofu mooy sama lieu de travail ñu gis ba may wax ak nit ñu ne man dama ko wax ne lii ak lii ak lii ak laa ko wax ak pour mu génn pour influencer ku ma noonu. Hmm. mais non décision bi dañ ko jàpp à l'assemblée générale bañ ko waxee ba waxtu bi jotee ñëpp génn dem si ci seen yoon. ñi ñoo nekkoon ci assemblée bi. waaw ñi ñoo nekkoon ci assemblée bi. kese waaw. Hmm. ñun la woon ak personnel bi foofu. ak personnel bi bi. ñun bi ñu demee ils ont donné quatre vingt cinq demandes d' quatre vingt cinq demande d' explication ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi kii nañ lañ ñi ñi ñi ñi ñi euh, purgé nañ seen seen peine am na ñoo xam ne purgé wuñu seen peine yëfi ku mu ndey am ndey ak yëfi ku ak mu amul ndey léegi mu am fa ñoo xamante ne ña nga fa ak suñu benn jigéen joo xam ne ma nga fa yàlla na ko yàlla dog vraiment euh, maa ngi koy ñaanal yàlla soppi ko mm-hmm. parce que dans la vie am na loo xamante alal jaru ko. intérêt daraja ak yu mel noonu du du kaw nit ñi nga koy du ci kaw nit ñi nga koy utee du ci kaw nit ñi nga koy utee xam nga ñu ngi may dégg ela ela ela ela ela ela war na war na xoolaat boppam na xoolaat boppam na xoolaat boppam. bi bi mbir mu amee Jean Wane lan ngeen def exactement. bon bi mbir mi amee. parce que comme que yéen da ngeen jàpp ni mbir mi licenciement abusif la. bi mbir mi amee. Mhm. ñu jàllale ko ministère ministre ministère du travail. Mhm. bi ñu demee ministère du travail tamit comme que ñoom ñooy kilifa inspecteurs yi mooy kilifa inspecteurs yi bu ñu demee tamit vraiment amuñu luñ fa luñ luñ fa dégg nag kii ko parce que moom dafa sukkandiku ci benn affaire moom tamit. Mhm. nee ñu waaw moom décision bi nga xamante ne inspecteurs yi euh, euh, euh, wax nañ ko ñun. dañuy jàpp ci loolu ba pare indil ñu benn juris arrêt jurisprudence bu cour suprême point. ku wax loolu. ministre mini mini ministère bi ministre bi. jeex na jeex na point ci loolu lañu jàpp ci loolu la jàpp. ba léegi deux ans boobaa ak léegi. deux ans léegi. xeex bi ñu dem. Mhm. uti avocat parce que lu tax ñu uti avocat. Mhm. suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu euh, syndicat bi nga xamante ne foofu la ñu affilié muy synthèse. Euh, euh, syndicat commerce. Mm-hmm. ñu affilié ñu nekk synthèse. Mm-hmm. vraiment vraiment dañu taxawul. Mm-hmm. taxawuñu taxawuñu nit ñi waroon taxawuñu nit ñu taxaw parce que durant processus bi yëpp première convocation li nga xamante moom la ñu defoon euh, à l'inspection ci lañ leen gis ba mu weesoo loolu gisaatuñu leen ba tey may wax ak yow nii kenn mus ci jël téléphone nemmeekuñu xool ñu ndax ci lan la ñu nekk. te yéen ci central boobu ngeen bokk. te ci central ci foofu la ñu bokk bon bi ñu gisee loolu ñu ne donc c' est la peine léegi nañ dem uti avocat boo xam dañuy dem ñu introduire suñu yëf euh, cour suprême. Mhm. bi ñu koy int yóbbu mu nekk ci dossier bi. Mhm. mu nekk ci dossier bi nekk ci dossier bi ñu toog ba ay euh, kañ au mois de septembre je crois ma toog avocat bi woo ma mu woo mu ne ma wan mu ne ma. yaa question am na lu ci lu xew ma ne ko mbaa jàmm mu ne ma du jàmm mu ne ma ka ah man de dama gis benn décision léegi mhm. man ne ko décision lan mu ne seen affaire bi gars yi jugé nañ ko ma ne ko jugé nañ ko mu ne waaw mu ne ba pare mu mhm. ma ne ko mais ne ko man ne ko ma ne ko ma ne loolu lu mu mën a amee mu ne ma loolu am ensuite te naka la ko ne affaire bi def nañ ko te yéen yëgoo leen seen avocat yëgu ko te biñ koy def encore biñ koy def encore ñi nekkoon ci biir pandémie bi instant boobu Macky Sall décrété woon na comme quoi que. Mhm. nañu tëj fépp foo xam ne ay rassemblement lañ. Mhm. école yi tëjoon nañu liggéeykaay yi nga xam dañ doon def rassemblement yi tribunaux yeeg yëpp. Oh, mhm. yëpp dañ pour éviter rassemblement parce que boobu feebar mi ngi mi ngi bees ak yu mel noonu xam nga ñoom ñu jugé ko. sànni ñu doon balance affaire ba kii ñu ko jugé le 27 foog naa le 27 août 2020. Euh, bu ñu vérifié gars yi nañ xam ne euh, ci biir pandémie bi la ñu nekkoon. instant boobu tamit je crois que ñëpp déggoon nañ Macky Sall doon wax. bu benn entreprise licencier ay. ay ay employés hmm. ñoom ñi nga xamante ne nag vraiment ñoo fi nekk war a euh, toxal yoon bon ñu defee loolu man daf may xaaw a jaaxal daal. Hmm. waaw donc daal bi est-ce que hmm. gisoo ni c'est c'est c'est c'est c'est le fait que dem ngeen ci justice amoo leen euh, gain de cause ainsi de suite. est-ce que jàppoo leen ni li ngeen di xeex bi jeexagul. am nañ benn recours bu ñuy bu ñu war bu ñu war. encore rabaadere bi. ba bàyyiwu leen. du bàyyi du ñu bàyyi. du ñu bàyyi tant que parce que même bu ñu kiiwul xam nga du question. problème bi kan la ci directeur bi la. carrément c'est bi directeur bi la. Mhm. c'est lui le problème. kan mooy directeur u Laborex. Frédéric monsieur Frédéric Valloni. Mhm. moom mooy indi loolu yëpp. boo leen demee Laborex boo leen demee seen avantage yëpp. Mhm. yëpp yëpp yëpp yëpp laa fi mu nekk commencé na ci laal teg seen teg teg ay tànkam. avantage yi fa nekkoon waaw tey y' a plus de délégués. tey may wax ak yow nii. kenn amatul délégué amul ña fa kenn kenn nekkatu fa pour nekk waaw wala déet moo tax am na boulevard lii la doon wut am na ko lii la doon wut am na ko normalement dañu war a bu fekkente ne trois euh, euh, élection euh, kii kii trois ans la dañ ko war a dañu war a organiser yeneen kii nu mu tuddi élection de délégué hmm. mais ba tey am def defaguñ ko. ba tey defuñ ko. mais yéen avantage la laalaat. si seen ginnaaw dafa am yu mu laalaat yu ngeen yëg. dafa am yoo xamante ne par exemple moo ñu fa kii par exemple dañu am benn protocole boo xam ne dañu koy wax protocole intéressement. Mhm. protocole intéressement mooy bu ñu liggéey at bi ba at mi jeex. bu ñu defee suñu chiffre ñoom bu ñu calculer chiffre d'affaires beeg yëpp calculer seen i charge ak seen lépp bu génn ba génn bénéfice bi léegi ci biir bénéfice boobu 10 pour cent ci bénéfice boobu dañ koy reverser personnel bi. léegi ci loolu mhm. dañu négocier woon comme quoi ci xaalis boobu mhm. léegi loolu chaque année lañ lañ koy lañ koy lañ lañ ñu koy versé c'était au mois de mars léegi ñu ne comme que salaire yi demeewul noonu à Laborex te nit ñi war nañ dem xool foofu mhm. ñu ngi wax Laborex boîte bu rëy la buy liggéey xaalis bu bari def chiffre d'affaires yu mag est-ce ñu ngi fay bu baax les employés fay bi baaxul léegi du moment où que moo tax ñuy reyante suñu ak yooyu pour ñu pour bañ kenn kenn bañ ko bañ bañ ko laal parce que loolu moo lay nooyloo tuuti donc. mooy motiver tuuti mooy motiver tuuti employé par exemple mooy intéressement bi ma lay wax nii. Mhm. par exemple dañu ne négocier ñu négocier ak ak ay directeurs yoo xam ne ñoo fi nekkoon. Mhm. de sorte que léegi chaque trois mois xaalis bi nga xamante ne bu ñu ko calculer fin d'année ñu jox la ko ñu nekk ñu koy ñu ñuy dugal sa biir salaire cent mille francs tous les trois mois tous les trois mois léegi bu ñu demee ba fin d'année bu ñu calculer ku ci nekk la nga am. Mhm. ñu reverser la ko. tiré ci li nga xamante ne moo doon kii ci euh, euh, cent mille cent mille trimestre cent mille cent trente trimestriel yi ñu doon hmm. jox ñu dajale ko jox la ko waaw hmm. bi ñëwee ci période covid bi mais ñoom ñi ngi doon liggéey hmm. Macky Sall dafa ne woon ñi nga xam ne liggéeyuñu ñu jox seen seen seen salaire ñu jox leen si soixante dix pour cent mais ñoom ñi ngi doon liggéey mais yi ñu doon am yëpp dañ leen ko coupé woon ñu liggéey parce que secteur médicament du taxaw encore ci ci covid bi nit ñi dañuy dañuy dañuy faju mhm. nit ñi dañuy feebar. bien sûr donc foofu gis ma fa loo xamante ne war nañ mën a taxaw ñoom ñu wàññi seen i salaire foofu seen avantage yi fa amoon ñu dindi ko et tout récemment laay wax ak yow nii. Mhm. allez vérifier au mois de décembre dafa ñëw génne note de xam lu mu leen wax. désormais dootuma leen jox cent mille francs ku nekk cinquante mille francs laa lay jox. daf comme yéen li ngeen doon ragal au début avantage. waaw waaw. loolu loolu loolu loolu loolu. maanaam léegi au lieu de cent mille tous les trois mois c'est cinquante mille. c'est cinquante mille mhm. à prendre ou à laisser. Mhm. waaw dossier bi nekk nii kooku mooy protocole intéressement bi. Mhm. kooku kii mooy. protocole bi nga xamante woon gars yi négocié woon nañ ko. ñu ngi si boo xoolee fii boo xoolee fii nii lire ko. voilà protocole bi lire ko lan la wax foofu. L'intéressement trimestriel qui était fixé à 75 000 francs CFA et plafonné à 100 000 francs CFA. ñan ñoo ko signé. kan mhm. directeur moo ko signé lii. Mhm. la direction. Mhm. Marc Limantour. waaw ak kan. des collège des des délégués. ban année la e Ba et Diallo. c'est quel kii protocole d'accord bi xoolal. ban année foon. kii mooy intérêt kii mooy intéressement bi ma lay wax mhm. bi nga xamante moom la ñu signé par mhm. rapport ak négociation beeg yooyu yëpp pour mhm. li nga xamante moo ngi nii mi ngi ni protocole donc moom mu ne li yëpp da koy dindi mu la remplacé ñu toog waxtaan ak moom ne vraiment affaire Sénégal dafa metti korité ak ay tabaski ay mm. cent mille francs yoru kook yu mel noonu mm, mm. dañu bëgg nga yokk ko mais mu def ko cent cinquante mille francs mais allez allez allez faire des reportages dem leen laaj leen nga xool ndax ndax ñu ngi leen di jox seen avance ba tey wala dañu jox seen avance fan la fan la fan fan fan fan fan la fan la fan la fan la euh, wéeru ne way quotité bi ñoom buñ bu ñu leen ko joxee duñ ko mën a fay ak mel noonu ok d'accord xam nañ ne loi bi dafa wax am na loo xam bu ñu la ko joxee soixante quinze pour cent yi foog mu dellu si foog mu foog foog mu foog mu dellu si ci yow pour euh, sa fin du mois mel noonu. Mm. mais loolu lan moo ko indi salaire bu baaxul bu salaire am baaxoon donc boo ko joxee boo ko joxee boo ko joxee euh, euh, avance nu mu mënti toll bu weer dee di nga mën a jël li nga war a jël ak yu mel noonu. Mm, mm. c' est ça sa politique. c' est ça sa politique donc mu ngi yàq kër ga avantage yi nga xamante ne même IPM bi nga xamante ne. Mm-hmm. mi ngi nii y' a un document kii la. Mm-hmm. ça c' est c' est un document boo xam ne document maison la. Mm-hmm. mi ngi nii gis nga CFAO contact. contact. kii c'était depuis 2002. Mm -hmm. par rapport ak euh, affaire euh, prise en charge yi mi ngi nii gis nga janvier 2012. Mm -hmm. une, couverture maladie pour, tous mhm. donc dañu waroon yooyu yëpp laal na ko yëpp laal na ko li nga xamante ne yëpp defoon nañ ko ak directeur yi nga xam ne remplacé nañ yëpp mi ngi nii donc couverture bi 75 pour cent 25 pour cent la ñoom dañu waroon couvrir euh, euh, kii nu mu tudd mhm. employé soixante quinze pour cent bi génne ensuite ñu xool tamit euh, euh, qualité de soins yi ak structures yi nga xamante ne vraiment ay structures yu baax la ñu kii fekk yu mel noonu parce que kii kër gu mag la ñoom dañu bëgg vraiment seen emploi yi nekk au top vraiment mu nekk à de l'entreprise mais moom du ko def ensuite y a d'autres yoo xam ne dama koy def foofu mooy par exemple amoon nañ fa gis nga gis nga les palettes là mm-hmm. les palettes yi di ñëwee ci conteneurs yi mm-hmm. yi di ñëw ci conteneurs yooyu ce sont des choses yoo xam dañ ko daan may euh, euh, personnel bi. Mm-hmm. wala affaire yu mel noonu. wala ñu ko daan ko dajale foofu bu ñu ko dajalee jaay ko bu ñu ko jaayee dañ daan def ay bu tamxarit di jot. Mm-hmm. wala korité buy ñëw ak yu mel noonu. Mm-hmm. ñu daan jënd ay nag yu bare yu mel noonu. ray ko buñ ko rayee ko léegi ko dimbale ko personnel bi ak yu mel noonu. mais tey dama laaj leen. yooyu lépp def ko jël de moom moo ko jël léegi di ko jaay. carton carton xam nga mm. carton mm-hmm. carton mm-hmm. yi médicament yi ñëw yu ki mel noonu mm-hmm. gars yi dañuy soxla carton yi ko mel noonu carton yi sax daf koy léegi moom moo koy jël carton mënutuloo xam nga carton yi comme yi sendi mm. ñu koy dajal ko jaay kooku ban directeur la directeur tubaab te tubaab la te tubaab la c'est ça temps bi temps bi dab nañu Jean Wane hmm. xam naa dañ lay bàyyi nga tàggatoo pratiquement onze heures jot na euh, bëggoon nañ aborder yeneen question mais temps bi may ñu ko gis nga gis nañ tamit dem ngeen si Guy Marius mu leen di soutenir ainsi de suite hmm. xam naa dañ lay bàyyi nga tàggatoo ak sa euh, dernier message booy lancé par rapport ak problème bii nii waaw li ma ci dernier dernier message ma ki ci lancé mooy que fi mu nekk nii euh, ñoom laay waxal hmm. ñu ngi ñëw te gis nga suñu problème bi bu ñu wool ñu régler ko li wax ma la sax yan yan ñëwagul bu yen bi ñëwee ñoom ñëpp dinañ dem teer ba parce que la nekk ci biir kër bi te ñu xam ko te bés buñ ko waxee ñoom ñëpp dinañ daanu maanaam am na lu ngeen bëgg war a wax te waxaguleen wax guñ ko lu ngeen di xaar pour wax ko non comme que licencié nañ leen waaw loo loo gis rek ak ak kiyam la. Mm, heure bi su jotee waaw xam nga côté bële suñu avocat mi ngi côté juridique bi ñun ñu ngi ci coté médiatique bi jarul ñuy daw booy dem làmb ja kañ wala ngay kii kañ. day jël donc dangeen bëgg ñu rétablir leen seeni i droit yéen lan ngeen bëgg exactement. ñu man du détails yu sew yi nga dàq ma ci nii nii nii nii mais na ma nañu fay suñuy droit. da ngeen bëgg ñu fay leen seen i droit nañ ñu fay man leen delluwaat laborex doy na bëggutuñu. seen droit ngeen di laaj ñu laaj nañ ñu fay suñuy droit nañ ñu fay suñuy droit nañ ñu fay suñuy droit waaw parce que nit boo koy dàq da nga koy dàq ci ay base yu solide voilà mi ngi noonu ñu ngi koy remercier bu baax a baax Abdoulaye Jean Van nekkoon délégué foofulee ca Laborex Sénégal ñu doon waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ne am nañ ko foofu bañ dàq leen ci seen këru euh, liggéeyukaay ñu koy remercier bu baax kon Abdoulaye Jean Van euh, ci disponibilité di leen di remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi 10 euh, heures à 11 heures ci seen émission sociale toute la ville en parle di remercier Mamadou Diaw Diallo bi nekkoon ci technique bi émission bi mën ngeen ko dégluwaat. ci suñu chaîne euh, YouTube mi officiel wala ci suñu portail internet www euh, point rewmi point com Ndeye Comba Moreau di leen remercier bu baax a baax ba samedi prochain incha allah ci beneen émission beneen thème ak beneen invité.